Euh, de toute façon euh, on a l'impression tamit que suñu homme politique yi dañuy changer de discours euh, selon parti bu ñu bu ñu bu toogee et loolu c'est dommage et c'est très grave c'est dommage alors laata may ñëw ci Cheikh wala sax ci ma dellu ci Maïmouna Abou ñu ngi gis ne que yaa ngi koy wax tout à l'heure peut-être les responsabilités c'est c'est partagé ñu ngi tirer balaa ay kii Abou wax léegi léegi sama kaw Euh, non non non. ah sëñ Saliou tu as tu as parlé euh, cher na nga wax ka man. waaw non mais. les retardataires non non a tu a parler ma jox Maïmouna ñëwaat ci yow. parce que sinon après Maïmouna c'est l'invité elle va rester beaucoup de temps elle va pas parler. voilà donc. Euh, non allez-y vas-y. il faut pas il faut pas xool kan moo njëkk wax compter peut-être nombre de prises de parole. c'est pas important. mujjee wax 30 secondes ça me suffit donc il fallait il fallait pas le soulever alors il fallait il fallait pas le souligner. Abou ah non non je te pose la question Abou chroniqueur yaay la damay bañ sama yaay mere lan lan lañ mën a xaar tey jii peut-être pour réguler cette cette situation parce que ñu ngi gis ne que quand même euh, ñu ngi xëcc à tout bord te c'est important ñu apaiser euh, situation bi suñuy apaiser aussi parce que ñu ngi doon dégg une partie de l'opposition wala sax waa yeewe askan wi di wax ne il faut pas ñuy xool tout le temps kii euh, répondre mais ñuy xool kan mooy tooñ te ñoom dañoo jàpp ne que peut-être régime en place moom moo nekk di leen tooñ ñoom ñuy riposter. Oh non xam nga euh, ku nekk da nga nekk ci sa rôle xam nga opposition bi dafa nekk ci rôle am radicaliser wu teg rapport de force am mais comme Sénégal opposition yi en général ak coalition yi souvent ay association n'importe quoi la amul benn critère bu leen di lié li leen di pacte li leen di lié mooy soit ñi contre président wala ñi am haine wala ñi am contentieux souvent mooy forme coalition yooyu. loolu mooy am foofu souvent ci opposition yi donc deuxièmement boo ko defee mooy souvent c'est des formes d'escroquerie et souvent c'est des formes d'association des personnes yoo xam ne mal intentionnées non am ay problème ñooñu ñooy daje souvent dans l'opposition mais amuñu ah. soo bëggee wax da ngay nekk amuñu programme opposition boo xam ne dañuy def mais pas à travers moi ngay wax ak opposition bi soit un garçon mer ngemb soit un garçon c'est moi qui suis là soit un garçon non mais moi j'ai quitté des xam nga être un garçon c'est moi qui suis là tu me parles euh moi quand j'ai quitté quand j'ai quitté non quand j'ai quitté là c'est ngay lambar lambar ci ginnaaw Idrissa Seck doo woon waxee noonu tu peux me parler c'est moi qui suis suis là. aujourd'hui <laughs> Nassim, je m'appelle Maïmouna Bousso. Maïmouna sois un garçon Maïmouna. et parle-moi. Maïmouna sois un garçon non, et parle-moi. parce que parce que ce que je parle yow da nga ci tuuti. parce que yow doo opposante. sois un garçon et parle-moi. doo opposante doo chef de parti. mais pas de Garo Wale. Garo Wale du yëpp ah góor. gaaxawaale yow doo chef de parti. góor doo opposant day def yëpp góor. yow da nga am problème personnel yow bokkoo ci yow waxuma ak yow. waaw de parti. opposition bi benn mérite nga am. man maa fi toogal mérite bi am nag. ma ci yegg mérite bi nga am pour ñu oh. intégrer la du ma ci yegg. mais déggoo la waay yow doo mouvement citoyen. Euh, hmm. tu es haineux, tu es colérique, tu es mal poli. tu n'as aucune discipline quand tu parles tu oublies que c'est les Sénégalais qui t'écoutent. tu viens de parler affaire du Seydi Hadji Malick bi jaxase nit ñi ñun suñu coalition bi sëñ Moustapha Sy mu tedd mi. moo ci nekk gis nga ñun munoo ñoo jaxase ak kenn yow da nga tuuti ci loolu yow da nga tuuti ci loolu bu nekkoon sa sëriñ doo toog fii di wax ne ñun respecté wuñu centenaire Maymuna yow amoo benn respect Maymuna s'il te plaît amuloo benn respect Maymuna amuloo benn respect te mun naa la fekk si ci terrain boobu ndax maa la ko dàq foofu maa la gën a nekk xale maa la gën a réew loolu dafay leer Maymuna fi toog ngay saaga benn opposition soit un garçon tu veux parler soit un garçon Maymuna parle-moi les yeux dans les yeux et on se parle ngay saaga benn opposition. Maïmouna tu es mal poli tu n'as pas de discipline. Maïmouna j'ai bien j'ai bien aimé ni nga démarré wee woon tout à l'heure ne ko doo doo dagg kenn d'accord Maïmouna Maïmouna Maïmouna Maïmouna tu Maïmouna on se calme on se calme mais on se calme on se calme d'accord waaw d'accord donc si wax Maïmouna Bousso. wallaahi pas de wiri wiri. may su ma wax yow sa cas wala sa exemple sa tur laay tudd yow. yow bu ma waree wax si yow si sa tur laay tudd. alors di Maïmouna association parce que considéré wu ma la foofu ça marche pas. parce que considéré wu ma la ci ñi may wax ça marche pas. parce que ñi may wax considéré wu ma la. ça marche pas ñi may wax. ni ngay wax faale wuñu la ni ngay wax faale wuñu la yëguñu la tinuñu la. yow yaa doon lambar lambar seen ginnaaw démb tey Maymuna Maymuna s'il te plaît ñooñu faale Maymuna s'il te plaît ñooñu fi ñu nekkoon démb la ñu nekk ba tey même principe bi il ne change pas de couleur en fonction de ce qu'ils mettent dans leur ventre Maymuna lii tout le monde se connaît ñooñu miinoo leen xamoo leen tout le monde se connaît ñooñu miinoo leen yow man nga gën a miin xam yow yow man nga gën a miin yow waxoo dëgg yow man nga yow laa la gis ci yow man nga gën a fekk di lambar lambar xamante man nga gën a jege te ñooñu yow waxoo dëgg yow maa yow fi ñu jaar yow man nga gën a miin te ñooñu yow Maimouna po Abou yéen ñaar a waxal yéen yéen ñaar laay waxal du ngeen ñëw débat jàkkaarloog sénégalais yi ba pare di régler ay comptes personnels aussi. sooy wax ak man waxal ak man. d'accord euh, Abou Abou ma bu yeggalil. c'est tout ce que dama ne ma tudduma duma tudd turam parce que li ma xam peut-être que posture bi mu ne mais man ku tudd sama tur si laa taxaw wax. Mhm. tontu mais li ma wax dama ne opposition bi peut-être que avant ñu yegg si fii man bi ma ko dalee wax c'est très clair dama ne li leen di dajale. en général du programme projet de xeex lay doon mais man waxuma ko dans le. waaw non xam dama ne lii tax ma ne la ñu ngi dans le rôle loolu laa ibbee. d'accord léegi qu'est-ce qu'il faut li ma ibbee dama ne ñu ngi dans le rôle de radicalisation te ñoom opposition du ñoom rek ñoo fi opposition. waaye qu'est-ce qu'il faut donc tout à l'heure non xam nga tout à l'heure sama euh, copain wax na ma ko si ne. kii ma ne la loolu mais bi may wax. Mhm. dama ne opposition ak classe politique bi nga xam ne ñoo fi nekk boobu léegi di tourner autour des coalitions dem xëccoo nga xam ne sur la base de séddoo ak sur la base de copain ak coquin nga xam ne man waxuma ko mais ñi nekk ci seen biir waaw mais dama décidé bàyyi politique. sëñ Saalum sëñ ko yow boo bàyyi yow yow xam nga sëñ Saalum yow da pare assumé nga génn bi yow ñaar yooyu nga boole. Oh. hypocrisie ak malhonnêteté. Abou Diallo xam nga non non non non non si dama fay yegg ak yow sànq yaa ngi naan des sénégalais yu nekk dans l'hypocrisie non non man dama ko soxla dama jàngi dama jàngi moo gën dama ko soxla dama jàngi lu may jullee dama jàngi nag parce que intellectuel su mel ni yow intellectuel bu mel ni yow mooy torox dama jàngi moo gën intellectuel bu dugg ci loolu waay non bu ma demee ba man bokk ak ah, sëñ Saliou table non non non kon am naa diplôme sëñ Saliou tardé ba bokk ak man table ñuy demee tardé nga tardé nga kon non non non tardé nga non kon intellectuel bi ma am naa satisfaction bokk ak sëñ Saliou table magal may rek nii nga xam waroon na ibbi école wala mu ne ci leneen donc am naa diplôme am naa diplôme de léegi Abou lan nga xaar ci tey homme politique yi de part et d'autre de part et d'autre lan nga xaar ci homme politique bi ay pas doyen ma bokk ak ñoom nit ah. ay ah, intellectuel la bi ñuy jàng maa ngi soxla ma jàng li nga jàng pour mel li nga mel soxla ma nekk malhonnêteté intellectuelle bugguma génnee ci école malhonnêteté intellectuelle donc li ma wax non li ma wax non li ma wax c'est des sociétés civiles nee na li ma wax c'est li ma wax mooy ñun waxuñu ko de une opposition la man sama wàllu bopp su dee dañuy sensibiliser sénégalais yi ñu war a defari ji loi respecté wuñu liste respecté wuñu charte def ay bêtises def ay actes yoo xam ne ni seeni ñooñ ñoo taxaw wax leen pouvoir aussi même chose ni ma ko waxee. di defar list war a dem fa ñuy defaree loi. ci seen biir def ay def acte d'escroquerie yooyu. Mhm. def see actes jël ay nit jël ay saakate ci profil yooyu foofu laay waxee Boubacar ne ko ñun bi ñuy wax. Mhm. dañ ne lat fi ñu jëm. Mhm. mooy on a trouvé des coalitions ànd. yoo xam ne tous sauf la tous sauf mais léegi dañ nekk phase tous sauf les mauvaises pratiques les mauvaises pratiques nag mooy offre yi lañ bëgg a xam tout à l'heure Boubacar foofu laa doon waxee moom ne ko juumuma les offres yu bees yii di ñëw. nga xam ne un débat la ñu soxla boo xam ne ni opposition wala groupe opposition wala chef de parti wala mouvement bu soxla Sénégal lan ngay indi parce que ñun ñëpp xam nañ feebar réew mi. d'accord ñun ñëpp xam nañ ne feebar réew mi problème mu texte la refondation ak administration politisée ak presse bu yàqu ñun xam nañu loolu ñun xam nañu société civile bu feebar société civile bu nanguwul jël ay responsabilités ñun ñëpp gis nañu constat boobu. ñu ñëpp gis nañu fi may wax ak yow nii classe société civile bi ñuy honoré sax muy marabu yi. Hmm. on les menace politique yaa ngi leen di jaxase ñu ngi leen di attaqué ñu ngi leen di saaga te ñi leen di saaga il se réclame du parti politique. d'accord laa la ne le problème pour ñu mën ko régler. oui mooy li ma wax mooy Sénégal askan wi ñoo jël seen pouvoir ci loxo opposition yi parce que dañu def échec il faut mu am limite. maintenant aux hommes politiques ba pare ñu réguler les médias réguler nag même c'est-à-dire cette société civile ba ñu xam ban société civile la ñu am pour que ñu mën a arbitrer déjà ñoom rek ñu mën a juboo seen biir waaw ñoom ñu xam ku si nekk ban kii nga nekk parce que li ñu am nii yëpp mhm. li wax mais tout à l'heure damay assumer mhm. ñi nga xam ne dañ ne ñaari liste waruñu dem ni ñu amee honnêteté wax ko ñi gëm loolu tamit nekk ci seen hypocrisie tamit noonu lañ leen ci respecté. ça il faut le démontrer. alors cher merci merci merci. il tamit ñi nga xam ne ci parrainage dañ leen dañ leen bloqué ñooñu xam ne eh, dañ leen eh, eh. bloqué woon ci parrainage ñooñu aussi tamit. waroon nañ statuer ci seen Abou mais waxuñu ne ni c'est irresponsable. ak crime

bien sûr on n'écoute que toi. Abou damay couper sa micro Abou je serai obligé de couper ton micro à force de te dire d'accord s'il te plaît s'il te plaît cher vas